sigel dewey to madru youtube nanti nan ci yow bu wer te bul faale ko wuy seek ka farja ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni la na yaawat nya daawoote ña daawaate mustafa serigne bi alaaji mor neena xolam sedd na guuy ndax taxaway lañu bëgg amna ndax it kenn ku ci ne bu dee tu Dan job taxaw nañu bu dee tu Fallou Ndaw taxaw nañu bu dee tu Dame taxaw nañu amul benn njaboot Moustapha Diouf ñëpp tu babu mbay Alaji seeni mbay mi mo la fa teewal serigne abdourahman Sall mu ngi ni di jeewrin serigne bakke sek mu ngi ni di jeewrin ak sunu ndaw ñi nga xamni ñom la yalla dogal ñu yere liggey bi muy Idrissa Ngom ak lu ëmb ci wa keur serigne Ousmane mom serigne Cheikh gayne Fatma barki demb la fi sama yaay joge genn aduna jëmm ji taxaw na ci taxaway bu am solo def ci defin bu am solo lam ci wara def yeb def nako fat saxo yag nga ñew ci kër gi di and ak soxna Awa jërëjëfati ndax yag soxna Awa bu de nak wuñu indi fi kenn jiituwu leen ci yal na len yalla fay ci barke borom Touba alaaji Mor di def alaaji Seni di def aji Ami Ndawit lam la waxon sëñ bi def na. rek lan fi bayiko ando ak yaay soxna Aminta Ndaw mu bay fallu Ndaw mu am lu mu ñëwoon doon la ko siyaaree muy siyaar bo xamanteni ñun ñëpp dañ cee contane ndax ñooy suñuy mag ci daayira bi nga xamanteni yaa ni ci jox ndigal muy daayira muhajirin tey nag ñu ñëw beneen façon ñëwin bu gën ànd ak suñu jawriñ Serigne Mor Diop Mahmadan mu bay Mahmadan job, yor batub Cheikh Mouhamadul Mustafa ci rew Gambia ànd koog suñu bay alhaji seni mbay mi nga xamanteni moy jawriñu mbooloo mi ak suñu baye Mustafa Dia mi nga xamanteni mom pusoloyor, jikko bu solo yor di nasa rek diggante yi lepp lu mu seen mu nara am galankor mu dox ba lepp jaar ci yoon and ko nak sunu imam bi nga xamanteni moy imam Babali di imam ci rewum Gambia ma am lu ndaw rek lo xamanteni na la ko presenter imam Babali ndax ku ne xamna ni jamono yi ci ginaaw amoon ay yeng yeng ci rewu Gambia yeng yoyo mu jël ci matuwaay wo xamanteni bakkan xajoon na ci waaye nag dafa dégg lislaam ndax boo xoolee ahlu badrin la may la nu am danoo jaayoon seen bakkan tuur seen dara ci islaam sa borom may ko ca ndam lu rëy ba mu toogaat fii ci sa kanam kon noon koy sant sunu borom subhaanahu wa taala lépp lu nu man ci sunum xel duñ ko moy la kenn ku dul Cheikh Mouhamadul Moustapha duñ ko mooy la kenn ku dul Cheikh Mouhamadul Moustapha ndax xam na ni bisub tey bii la ko waral daf ko jaayante woon te jaayante gam ko jaayante woon yàlla ndam lam ko ca may tey dama naan mooy indépendance su yoonu murit ndax tey nasaraan bi li mu bëggoon su ko amoon ca jëmm sëriñ Touba kon jataay bii du am tey ndokk nag bu Cheikh Mouhamadul Moustapha ca jom ja sa fidwa ca fayda ja ca fulla ja jëfeek ñoom ba lam bëggoon lépp mu am ko te muy la Cheikhul Khadim bëggoon tey moo nu may lii nu bëgg nu am ko innamal mu'minuna ixwa islaax googu ñoom ñu ngi ci ma bëgg a fee fàttali ñaari mbir rek yu néew waa Gàmbi yi ma àndal yëpp ñu ngi am itteel lool pour déggee ci man moo ma tax sàkku rajo bi su ma ko su ma waxutoon du leen neex rawatina kilifa googu ñu yaroo ci ronam mu xam ñu xam bu wóor muy Alaaji Ba Mbay ma bugg wax ne yàlla tegoon nañu nattu ci atam 2012 ci wax li yàlla santaane wax li yónnent bi santaane واي واخ لي خادم الخادم سانتاني يالا ناتو ني ني تيج ني كاسو لوي ديم سي جوروم بن وير واي ما خمال مبولو مي في تيو ني كو باخ كو ني يالا تيك لا ناتو ناتو نك دي ناي ووتيه جانغينا تي خم خمو شيخ الخديم ني امنا ньо خامني سين ناتو خيوال لاكو يالا ديف جوخ لا علل لولا نيه لو يوتو جوت لو واخ مو ام لو تري ني با mu ne waaye boobu nattu nag mucce koo gën a jafe waaye mu ne natt gu metti moo gën a yomba muñ ba ñu yàlla nattoo nattu boobu ñu dugal ñu ci kaso boo xam ne ci biir pax la ne amul benn nit ku koo xam ne gisuñ ko waaye liñ gis ci zahir seexal xadiim gisuñ ku ko toll gisuñ kenn lu ko toll ku ne xam na ne man tiijaan laa seet laa ci Cheikh Omar Fuutiyu seet laa ci alaaji baaba mi nga xam ne ziyaara na si Ahmad Bamba yoon yu bari ba taawaam Ahmad Bamba la ko tuddee setam ñu ngi koy wax faatuli mu nga Kaolack fale tey am na luy dem fi ñeen juróom-ñeen fukki at mooy bàyyi mooy yaay ñoom Habibu Kan ñoom Sharif Kan ñoom Moustapha Kan ñu ngay liggéey ca ligue mondiale bu islamique bu Medina ma sëriñ bu mag boobu feeñu woon suñ maam ju wax ba baax jooju daf ma daan woo ci sawtul bayin mooy kàddu gu bir ne ma wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wax na ma ko yooni yooni yoon ma bugg a wax ne yàlla fam ne woon la ne ba tey ñun ñooy toxu ñun ñooy soppeeku waaye bépp jullit bu yàlla teg nattu ci kaw yoon nga muñ ko ci kaw yoon yàgg yàlla ànd kon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di feddale googu kóllare di kontaan ci jotaay bi di la ñaanal yàlla di sàkku sa ñaanit ñuy sant yàlla bu baax nag ndax sëriñ muuru kan ñii mujj gone woo ci moom dañoo denoon dañoo mujj sax dootu sëñ Tuubaa sax dootu ci wax lu bari sëñ Cheikh Mbacke rek lu ne seede na lu mu ci mas wax am na ko loolu ñu faral di ko wax ci di koy dégg ñu naa daan wax ni waxi sëñ Cheikh ni ko defee alxuraan noonu li ñuy doon doon gone am na lu ñu ci mën a wax jox na wajuru sëñ Cheikhu naa mi fukk ak juróom-ñett ni ko na ngeen ko fonk bis dina ñëw nit na nga ko tabax ci biir fay leen jàpp naa kër yi ku ci am tay nit ñangi taxaw jongoroon na dañu bëgg tabax di fay bu matee nga jël sa kër no nga fàttaliku gëtte fuuri bi mu ko indi Sénégal ñu ko defan ci tëli ci tol bay Ousmane gi ci dark sa googee waye lam waxat nu dégg mag ñi ko suñ bàkkee ñu xam cheikh ne bu ko kenn jaay nañ koy jënd seen biir def na tuuti lii wàccim ndox dootu ñëwal gerte ilawe booba sax ñi nga xamne amu jël ñaanu ne ci farañ ba luñ ci gis jël tay japp na lolé mu fekkan kenn mo ko gis kenn mo ko dégg kon kooku ak baatin bi mu yor ci seigne Mour kan wax ni lima ragal rek moy seigne Cheikh Mbacké baatinam ni ci jëriñ du bari ni ko misaale won dafa wax dafa melni tax bo xamni dang ko nga koo duyoog leem ba nga delo ci sañ ba la ca rek yamba yene ci ba ñu ubbi tax ba borom tax ba jël tax ba tax ne loko andil lu mu reere man nako ko ci xam-xam akum xel ba tax ne kenn soxlo lal baatin bi kookee nak japp na ni kenn mënu ko wut ci lu ciobarem kon ko tok fi da koy mat seuk Mbacké xam-xam andiwu fi nit fan wu gudd andiwu fi nit ay pexe andiwu fi nit coobare yàlla moo fi andi waaye ku fi ñëw ku ne xam ne dañ koy tànn yow nag dana am lu nu mën a seede ndax na noog yow lu yàgg ñi nga fi wuutu muy sëñ Mbacké Soxna Lo muy sëñ Abdoul Fatah kenn ku ne liggéey nga ko loo xam place bi lew na dom amu ci ku mas di dem bitim réew lu weesu yaa ko fay jiitu xàll ko ba taalibe nga xam ne bu ñëwee joxe seen addi yeeg tàll ko mu ñaan doo nga ciy des mosoo bëgg dara kon nag fii nga toog léegi na la fa doom yal na nga na fi toog loo soob loo fi sumb yal sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax nee na nag euh, euh, lim leen di digal mo ngeen jóge loolu lañ leen wax euh, xam na ne liñ lii mu leen di wax moom rek li leen sëñ Moustapha di wax nee na nag kon sëriñ Moustapha ab taawama jëwriña ma lu ko waay defal lu nekk moom mi nga ko defal kon nee na na ngeen laxasaay di topp ci gannaawam loolu sëriñ boo xam ne leen ko wax nee sant na leen bu baax nag nee na itam mi ngi nuyu El Hadj Mor ak imaam ak jëwriñ yi nga xam ne ñoom la àndal ñu jóge Gàmbi ñëwoon ngeen fi démb waaye ñëwaat ngeen fi tey nee na loolu it lu ko neex la ndax euh, xam na coono yi ngeen daj ba ñëw fii kon gisee yéen tey gisee yeen suba gisee yéen ak gannaaw suba loolu du ci dàcc du ci tàyyi na ngeen xam ne daal euh, mu ngeen gis ko ak ngeen ñàkk koo gis euh, bëtam ak xelam ak xolam du jóg ci yeen ndax réew ma gis na na fa nekkee gis na taxawaay it yi ngeen fay taxaw lépp nga agsi ci moom kon mi nga ñaan sunu borom mu lafal leen cat te dimbali len ba li ngeen bëgg a liggéeyal sëriñ Touba suñu borom may len carton gu ngeen liggéey neena serigne serigne Mor serigne bi neena na ngeen jëf neena bo ngeen delo ñi ñewul ñëpp it na ngeen len ko santal te xamal len amna se manam see na len sant na len mi ngi len di ñaanal yàlla euh, ngeen bañ a ak men ndog alaykum wa rahmatullahi taala wa si gel te do madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy ka farjëkki mustafa su fekkon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ne yaa daawoote ña daawaate Mustafa